wàllu njàngale mi bés yi amal examen baccalauréat ren ji xam nañ ko calendrier gu yees gi nag doxal épreuve yooyu ñaari session la taxawal benn ci weeru août la nar doon ba ca des di bu remplacement bi ñu fas yéene ka amal ca weeru octobre daal di ci ànd léegi nag ak office du bac Badara Diop ak Pape Samb ci ay leeral. léegi kon leer na examen baccalauréat 2012 bi dinañ ko fas yéene amal ci ñaari session sesion bi ci njëkk di session normale ñu fas yéene ko amal ci weeru août bi ñu dëgmal bu ci topp di session de remplacement mu fas yéene am ci weeru octobre calendrier bu yees bi day am gannaaw ba nga xamante ni kilifa yu séq njàng meek njàngale mi amaloon nañu ab waxtaan bu xóot si teewaayu jëwriñ gi nga xamante ni moom moo yor njàng mu kawe mi ci janoom ak taskatu xabaar yi baabu jaaxam di directeur de l'office du baccalauréat ne épreuve philosophie yi dinañ ko fas yéene amal àjjuma ñaar fukki fan ci weeru juillet baccalauréat de l'enseignement secondaire ñu fas yéene ko amal altine ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juillet baccalauréat de l'enseignement secondaire moom ñu jàpp ko juróom-ñaari fan ci weeru ut bi ñu dëgmal lu jëm nag ci session de remplacement bu baccalauréat bi directeur de l'office du baccalauréat ne dinañ ko fas yéene jàpp ci biir weeru octobre bi Eh, yor njàngale bu kaw bi eh, dogal na benn dinañu taxawal ñaari session baccalauréat benn bi ci weeru août benn bi ci weeru octobre ñaar eh, ku nekk ci ndongo yi dina mun a tànn benn ci ñaari session yooyu. baabu Diakham di wéy ba léegi di indi leeral ci wàllum examen boobee directeur de l'office du baccalauréat ne amul benn élève bi nga xamante ni dinañ la may nga defaat session de remplacement bi lu dul ne defuloo benn épreuve bu dul li nga xamante ni moom mooy éducation civique bi ci wàllum session bu njëkk bi. ñaan ñoo mën a bokk ci session octobre bi euh, ki nga xam ne deful benn épreuve wala nga xam ne jongante euh, euh, tàggat yaram bi ak épreuve facultative rekk la def ndongo su xëyee ba tàmbali te jeexalul mënul bokk session octobre tànk càmbaruñu lu mu jot a def ci examen bi ak lu ko gàllankoor ñi jogante ba jeexal amaanaa dañu admis wala ñu euh, ñu bañ a admis du ñu mën a def session octobre bi. li jëm nag ci traitement des dossiers ñeel bacheliers yi fas yéene weer seen jàng ca bitim réew. directeur de l' office du baccalauréat ne ministère de l' enseignement supérieur daal dinay joxel ndigal yu wóor ngir ñu mën a ibbi ay waxtaan ci ni mu gën a gaawee. ñeel li nga xamante ni moom mooy bourse yi wala li nga xamante ni moom moo di prescription yi ngir mën a jàppale yooyu les bacheliers ci seen wàllu démarche.